bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi jël kaddu ci turu suñu sëriñ bi ñu àndal sëriñ Siidi monsieur Abdul Xaadir ci ndigalam eh, di sant nag gouverneur bu baax a baax a baax ndax ni ko Abdoulaye Mbaye ba waxee kuñ tudd Seex Ibra moom ci kër gi nga bokk ci kër yëpp nga bokk tax taxan taxawaayam sant nañ ci bu baax rafet na lool suñ Sidi nee sant na buñ demee danañ jottali sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy suñ kilifa ak sëriñ Moustapha taxawaay bi ñu ci taxaw yaag mboolem chef service yëpp nag ndax kenn koy déglu nañ ko kenn ku ne ba mu waxee gis nañ yéeneem ak bëgg-bëggam xam nañ ne lépp euh, ñor na leen lool te da ngeen taxaw incha allah nit ki nag bu defee la man rek la ca des moom ñu bàyyi ko yàlla waaye xam nañ ne li ngeen waxee moom mooy liñ bëgg te yàlla na lépp sotti di sant it monsieur le maire mii moom moom Touba gépp koy sant ndax taxawaay taxawaayam rafet na lool ci lépp nag man na màggal yu ndaw ndawaan yoo xam ne sax bu mel ne suñ goog ñun da ciy taxaw bu baax a baax a baax te bu ko neexoon bañ cee taxaw kon nag noo ngi koy gërëm moom ci kanam gouverneur ak kanam sëñ Sidi mii nga xam ne mooy suñu kilifa jot na ko seen Cheikh ne ko gërëm nañ ko bu baax a baax a baax kii ma nga foos it na teel a ñëw loolu moo am na ci solo lool ndax kër yi ko kër yi ay ci kër sëñ Abdou Khadir bari na te soxal nañ ko nag mu tax ñu ngi ñaan fekkee maire yor loolu wala keneen ko daal ñu ñaan ñu dimbali ñu bàyyi la premier ñu mën a tàmbali ndax la neuf la màggal bi suba rek waaw waaw kon ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp turu Serigne Sidi mi nga xam ne mooy suñu kilifa di sàkku it ngeen ñaanal Serigne Sidi ndax yan bi ko sëñ Cheikh yan rëy na ndax ku ne xam ne ne Cheikh Abdou Khadir Sénégal gépp ko bëgg fu ne leen di jóge fu ne Casamance ak Gambie la leen jóge ngir sonk Cheikh Abdou Khadir te moom mii moo yor organisation bi moo yor lépp ñun ñii ku fi ñëw moo la fi kon nag na ngeen ko ñaanal yàlla jàppale ko moom itam ba taxawaayam bii mu taxaw gën a yàgg gën a dëgër gën a rafet tey am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax noo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp bokk itam ku sëñ sii di woo ku ci sëñ woo ci téléphone wala mun ne la kaay bu dee jihaat sax danga dem ndax jëne leen ko bu wootewoon jihaat ñëpp ay wuji ndax jëne leen ko ci baaxam ak woyefam ak déggoog ñëpp kon noo ko sant di ko gërëm te di ko ñaanal ci dara ji sëñ Touba yàlla defal ko li mu lépp yéen itam yi nga xam ne yéen yor liggéey bi itam noo ngi gërëm bu baax a baax a baax am na loolu sax doon naa fàttali sëñ jiiri mi ñi ñiy màggal si tër yu oto di paas nañ ñu dimbali ba paas yi moom chauffeur si nga xam ne ñoo ko yokk ñu bañ ko yokk lu bari xëy na mëntu ñàkk waaye daal ku jóge dakaar war a fay junni ñu fay loolu ñetti junni am na loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dimbali te yéen yéen yor réew mi yéen yor secrétaire mi yéen yor lépp hmm. kon da ngeen dimbali ci kuy ñëw daal na fexe ba bu amee junni ba muy paase wala lu ci topp lu mu tuut tuut mën a ñëw waaye am na ñoo xam ne bu ñëwee ba Touba sax ba Touba ba ca ay ca gaaras ba day fay juróomi jun doo des ci kër gi ndax ñu ne daa daa xat daa nangam nangam loolu lépp nag ci sa force la waaye nag nañ ci ne ñuy ci yéen leen taxawal na ci ba yokk moom bu amee it ba mu bari lool waaw loolu daal moom dinaa ko wax sa njiit mi mu ne waxaal nañ ko transporteur waaw kon noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp yaakaar ji ngeen am itam li Abdoulaye Mbaye wax na ko sëñ Moussa wax na ko démb neen sëñ Abdou yàlla ku ku xam nitu yàlla mm-hmm. bu bu fi nekkee lu muy wax suñ borom mu def ko xam nañ ci lu wér a jaar naag moom fu wér fu leer la ko amal amuñu benn sikk li sëñ si di sëñ Abdoulaye Abdoulaye mu ne maam Thierno ba muy tudd sëñ ba muy tudd si sëñ Abdou Khadir jógee njaareem ko yeexalal say jéego mm-hmm. yeexal ko te jaar foo jaar ku la gis du dem sawara sañ na ko de hmm. sañ na ko ku ku gëm ci sa xol gëmal ku weddi yaa xam waaye ñun wóor nañu si yàllaay maye yàllaay moom lépp mooy maye tamay na ko kon nag yàlla na yàlla fekkaloo ak jàmm te lu ci waaye def yàlla fay la ko doole sa bagaana ba mu fees dell ci ngëneel ak xéewal te ñeen yéen ñëpp ngeen gudd fan lool te wér waaw surtout na sun suñ maire bi nga xam ne moom taxaw na lool ci Touba Touba nag dafa naqare yor nag dafa naqare yor waaye li mu ci def keneen ku ñëw doonul ko kon donc gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te saxal ko fi barke sëñ Tuuba bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man nabiya baado asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh monsieur le gouverneur monsieur le préfet chef de service ñu ngi leen nuyu ci turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ñi nga xam ne mooy jëwriñ Cheikh Abdou Khadim Mbacké ataala allahu baqaahu wa saxaa jismahu di leen nuyu ci turu Cheikh Mahamadou Muntaxa mi nga xam ne mooy jëriñu Cheikhul Xadim ñaan yàlla yàggal ko fi lool te dolli gërëm ba ñu bëgg mu def ko ni ma ko bëggee di leen tuy ci turu njabootu kër Cheikh Abdou Khadre gépp di leen ci turu comité d'organisation bi nga xam ne ñooy yor waajtaayu màggalu Sëñ Abdou Khadre daan ànd ak ñoom tey ñëw fii ci gouvernance ngir doon fekke si CRD bi nga xam ne moom la ñuy def at mu jot bu magalu Sëñ Abdou Khadre jullu see ñuy gërëm gouverneur bu baax a baax ci ni mu ko baaxoo defe at mu jot saa buñ fi ñëwee rek mu dalaal ñu tatakal ñu organiser jataay bi ci anam nga gën a rafete ba buñ fi jógee suñ xel day dal suñ yaakaar day dëgër ci ne bis bi ñu jëm niñ ci bëgg danañ ko am ñu koy sant bu baax at mu jot ñu ko fekkee dana ci taxaw taxaw ba ci war lépp moo préfet sous ak service yëpp ba damaa ñun fi indi rek daanañ ci def seen kem kattan bu ngi ko amul 100 pour cent itam toujours moo ciy manqué kon ñu ngi di gërëm bu baax di gërëm monsieur le maire bi nga xam ne moom ñoo bokk dëkk ba ñu sunu xarit sunu wëllëre màggal yëpp lay taxaw jamono ne waaye su mag yi rek su danañ def xaas yoo xam ne ñun ak moom rek ñoo xam li tax mu def ko moom it ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal ci liggéey bi ko sëriñ bi liggéey lay fee mu ciy gën a am ndam te gën sax déglu leen baax mboolem sëriñ yi fi jóg yëpp tawarkàll nin ni ko Abdoul Khadir bu se présenté suñu bëgg-bëgg ñoom it tont nañ tont yoo xam ne dal na sam xel ba jàpp na ne màgg du am benn jafe-jafe ci daw ko amee tam naka jekk nag kon nag ñu ngi leen di gërëm service yëpp nag te leen séentu ci bis bi xam ne ki ni nag mooy a Cheikh Abdou Khadr Mbacké mooy ki nga xam ne ab dundam mi ngi ko tegoon ci istiqaamatu wa sunnatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ay waxam yëpp dawul génn loolu lu saa buy dégle rek li muy déglu ngeen jaamu yàlla te dëppale ko sunna yonent bi sallallahu alayhi lu mu daa dëgëreef mu ngi neen ngeen am istixaama istixaama nag ci la ci la lislaam yam in lazina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanassalu alayhim al-malaa'ikatu allaa taxaafu wa laa taxzanu koo xam ne dafa gëm am istixaama moom du ragal dara du si dara ndax day xam ne yàlla yor lépp lu jotoom yàlla dana الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون yëpp day takkal ne ah istixaama boo xasee ba am moom doo amat looy tiit doo am looy ragal moo tax Cheikh Abdou Khadir noonu foofu mu tegoon tànkam ci ci sunna daa ne lu ne lu ne mën na ko bàyyi nit ñi ba mu des sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moom ab boxonte lay doon waaye du ko bàyyi kenn kon nag kooku la ñuy màggal allah le neuf mooy bis bis boo xam ne bisu xéewal la bisu yërmande la a bis boo xam ne Seexul Xadim sunu yaakaar moo waxoon moo ci waxoon wax nga xam ne mbokk yi nettali mu dikki nag teg tànkam ci istixaama ak sunna si yeneen salem ba dund fi lu mu dund kooku bis boobu kon nag bu agsiwaatee buñ koy wo màggal képp koo xam ne bëgg nga njëggalul suñu borom waaye bëgg nga yërmande suñu borom war ngaa teew ci bis boobee ca booy dikk nag nga ànd ak pas-pas bañ a dikk rek ndax léegi màggali di am ñoo xam ne day dikk ngir yàq ak def lu noona loolu nag moom wowuñ ci kenn màggal gi daal ni nga ko teg ci jàng alxuraan jàng xasida ak salawaat ak i ak i ak tasbihaat loo ci man nga def ko ak ci berne loolu mooy màggal kon nag ñu ngi ci woo ñëpp nga xam ne màggal gi day am ay waajtaay at mu jot dana am jataay boo xam ne dana ko def le premier boo xam ne wàccaay màggal lay doon koy def ca Touba ci sunu mbokki waa mox mox yooyu faa ngi koy defee ci fournissement mu ñaareel ba ñu koy defal defe ci bokki Sëñ Abdou Khadre la ñu tànnal ba dan ñu ngi ko tànnee ci tànn ci sëñ Mbàkke Kan mi nga xam ne mooy nijaay Sëñ Abdou Khadre moo waaye juróom ñoo bokk lépp moo jur sëñ bi sëñ Bachir mi benn jaraay foofu ci këram lañ koy def bi ci des ñu ngi koy at mu ne dañu koy def ci kër Serigne Abdou Khadre ci njaboot gi te ren ñu ngi koy defee ci Serigne Abdou Serigne Abdou Wahab Mbacké nu wàkk tëje ko conférence bi ñuy def le sept boobu ñeenti at ñeenti yi toujours kon nañu ci woo ñëpp di ci ñu ngi sant bu baax di la gërëm bu baax bi sant mboolem service yi taw yëpp tey ñaan yegg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ci aju ju fa waaye indaale suñu borom faj ko axiru dahwana alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Mbacke ñi ngi féddilwaat suñu ziyaara si sëñ Muntaxa Bachir Mbacke xalif général de Mourides di la nuyu bu baax di yóbbante nuyu si sëñ Cheikh mi xalifu sëñ Abdou Khadir Mbacke ak njabootu sëñ Cheikh Abdou Khadir Mbacke yépp mm-hmm. di euh, rafetlu rek kàddu yi nga xam ne moom euh, moo fi jib di wax ndaje bi ñu ngi ci euh, jeexital bi ndaxte kilifa yi ñoo ñuy sas rek ba su mel ni su amee ñu toog ak ñi nga xam ne ñoo yore comité d'organisation bi xool nañ leen leen ci gunge ba bés bi mën na euh, xool état nu mu ci dugalee loxoom ndax wax nga ko léegi affaire bi euh, comité d'organisation bi ñoo yore te li état def rek mooy gunge parce que am na si yoo xam na na peut ci loosu état la la gàllu moo tax yu mel noonu ñu ci def euh, réunion seerle bi euh, ginnaaw nag bu ñu sante suñu borom bu mu may bu baax ñu fekkewaat ko ndaxte ndangam si daaw kon naa amoon nañ ndaje bu mel nii ah li nga xam ne rek euh, moom la état war a fàggu pour gunge leen ci bës bi du ñu dellusiwaat ci lu waral bés bi ak ki waral ñu koy def ndax foo naa sëñ si bi wax na ko Abdoulaye sëñ Abdoulaye Mbaye aussi leeral na ko kon dañuy sant suñu borom bu baax rek bu ñu mayee également ñu bokk si ñi ci ñi ci barkeel war ko ànd ak chef de service yi nga xam ne ñoo nekk au de la région de Diourbel ak autorité yi nekk ci département bu Mbacké euh, te préfet bu Mbacké jiite ko ndax am na loo xam ne après moom moo ñu ci continuer euh, teewal ñu foofu pour gën ko mën a saytu ah lépp loo xam ne nag ci wàllu bés bi euh, war nañ ci mën a taxaw ñu defoon ko nag ci ay pàcc ba si jiitu rek mooy wàllu wër-gi-yaram ni ngeen ko waxee niñ ko defoon daaw wanaa loolu lañ ci war mun a continuer muy cinq post médicaux avancé muy juróom ak également ñeenti ambulance yoo xam ne dinañ ko leen dinañ ko ci toftal ak ay garab yu doy loolu foog naa la direction régionale de la santé jël nay engagement pour mun ko defaat ni mu ko defee waatoon daaw pour euh, ne wër-gi-yaram également wàllu hygiène da ciy am solo ndax euh, prévention la ndax maanaam mooy faggu donc loolu foog naa ne également ci wàllu dëkkuwaay yi lim bi toll na ci téeméer ak juróom fukk service d'hygiène lëkkaloo ko également ak commune bu Touba Mosquée dinañ euh, def liggéey boobu semaine avant bés bi incha allah euh, li ci des rek mooy ci euh, liggéey bi nga xam ne comité d'organisation war na leen mën a dimbale mooy limu kër yi ñu identifier ko ndax lool loolu service d'hygiène mënu ko def mais day ànd ak comité d'organisation bi gëm nañ ne suñ génnee ci réunion bi war ngeen mën a def liste bi nga xam ne foofu la service d'hygiène war a dugg su ko defee du am benn euh, tardement ci wàllu liggéey boobu donc loolu foo naa comité moom moo ko war a fàggu pour wax ko ne kër yi ak kër yi moom la ñu war a mën a désinfecté donc lool foo naa ne euh, service d'hygiène dinañ ci dugal loxo bu baax ci wàllu setit am na bés boo xam ne jël ngeen ko muy le 5 juillet pour def euh, nettoiement maanaam setal setal dëkk bi loolu également SONAGED bi nga xam ne mooy kuréel bi état samp ànd koog nag mairie ndax tamit mairie am na ci pàcc ci wàllu salubrité te ñiy rafet lu baax nag engagement yi nga xam ne commune bi jël na ko te jaare ko ci maire am ne moom it dina jël jumtukaayam ñu boole koog bu Sonaged lëkkaloo ko mu nekk benn waaye tamit dañuy ñaan rek taalibe yi ndax xam nga wàllu set moom il faut loxo yi bari maanaam muy ressources humaines yu doy buñ ko bàyyee rek ci agent wu Sonaged ak agent wu mairie yi loolu également ñi ngi demandé ko comité d'organisation bi mu def appel taalibe yi génn su ko defee yaakaar naa liggéey bi dina gën a set dina gën a gaaw mais suñu nee rek mairie ak Sonaged naam dinañ ko def mais mun na yéex wala liggéey bi gën a te yaakaar naa nag comme ni nga waxee soxla bés bi ku nekk ci wàllu woo féete war nga ci mën a barkeelu taalibe bu ne ci bés boobu noonu mun na ci doxal dugal loxoom kenn ku nekk am nga jumtukaay boo xam ne mu ngi sa kër muy bale wala rato nga ànd koo nag agent yi nga xam ne Sonaged ak mairie indi na ko yaakaar naa loolu suñ ko defee suñ borom mun a jumbale ba bës boobu liggéey bi du jafe trop ci mairie du jafe trop si Sonaged jumtukaay yi nga xam ne nag taalibe amuñ ko subaa Sonaged ak mairie war nañ ko mën a indi muy pelle mécanique wala muy ay camion am na sax ñàkkul ay taalibe yoo xam ne tey jii suñ ko yëgee ah mën na jël seen camion dooli ko ci donc loolu foog naa tamit loolu ñuy ñaan sëñ bi ak comité d'organisation ñu gën a rek liggéey bi ba ku nekk mun cee mun cee barkeelu euh, secteur yooyu yëpp nag ñu wax it am na ci wàll boo xam ne commune dina ci dugal loxoom muy ci wàllu service d'hygiène ci wàllu également nettoiement wax nañ ko léegi mais assainissement donc ndax xam nañ ne tawagul waaye mun naa mbalaa boobu également ndax le 9 juillet la kenn xamul mais nañ ci faagu également ONAS parce que waxuñ ko mais le 9 juillet mun na tombeek également mu taw ci biir région bi te loolu ñu ñaanit ndax tamit nawet bi moom ndax xam nañ ne bu baax wàllu mbay donc loolu il faut que mooy indi koom-koom mais également ci wàllu assainissement au delà ci camion yi nga xam moom la ñu def pour fosse yi nañ bàyyi xel bu baax également ci les eaux pluviales nañ la ñuy def ba mun leen évacuer uh-huh. euh, su boobaa peut-être pour facilité dem dikk bi surtout priorité mooy axe routier yi ba su ko defee dem dikk bi aussi bañ a am gàllankoor donc loolu également ONAS nañ ci bàyyi xel euh, ci wàllu waajtaayu bës bi euh, leneen rek muy wàllu kaaraange loolu yaakaar naa ne muy police ak gendarmerie sapeur pompier yàgg nañ di liggéey ci bës yu mel nii donc jël nañu engagement lépp loo xamante ne dispositif la pour aar askan wi mais aar également seen alal dinañ ko def pour mun leen gunge nit ñi ñëw si jàmm màggal si jàmm également dellu si jàmm. Euh, leneen nag muy wàllu approvisionnement dinañ ci wax ndax contexte aussi moo ko laaj ndax foog naa ne dogal génn na pour wàññi yenn njëg yi donc balaa boobu foog naa ne donc commerce mun a def des missions de contrôle ndax incha allah balaa màggal ga peut-être commerçant yi tàmm ko ndax du ñàkk nag ñi nga xam ne. mun nañ ko bañ a mais contrôle rek mooy tax ñu tegu ci yoon donc loolu fennaa également dinañ sàkku agent wu commerce yi ñu saytu marché yi pour application prix yi nga xam ne moom la kilifa yi jël pour ñu mun ko wéyal ci biir marché yi mu bañ a bañ a am yokk mais li jiitu xeex bi mooy mooy ñu fexe sax ba loolu ñu appliquer ko donc yokk bi moom ce sera une infraction donc loolu la ñuy ñaan mais tamit gëm nañ ne sëñ bi su kàddu yi si jibee tamit si sëñ bi ñaan taalibe ndax ñay jaayit ay taalibe lañ donc foo naa duñ lor seen moroomu taalibe donc yow ko également sëñ si seen communication yi nañ ci ñaax commerçant yi nga xam ne ñoo féete Touba ak Mbacké ak même ba Njaareem ndax màggal gi euh, day law ba fii su ko defee njëg li nekk njëg li nga xam ne moom la kilifa yi bëgg ñu def ko pour gën a yewinal également askan wi leneen rek ñuy ñaan li nga xam ne moom lay ciy jël comme engagement di sàkku rek sëriñ mu ñaanal ndax c'est des services yu teew yëpp euh, ba suñ borom may leen kàttan gi nga xam ne dinañ mën a mottali engagement yi nga xam ne jël nañ ko fii ah di ñaanit euh, kilifa gi nga ñaanal ñu baax ah tombel la na nguur gu bees it du ñàkk di ko wax it ngeen ñaanal leen ba suñ borom defal leen ndam ci réew mi muy président Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre ak l' ensemble gouvernement bi suñu amee ndamu askan yëpp la donc également ñu ngi sàkku si bés bi ñu ñaanal leen suñu borom defal leen ndam mu nekk également njëriñu réew mi yëpp donc loolu daal lañu amoon ci wax li des rek préfet bu Mbacké muy le suivi des engagements ndax naam ñëwagul waaye lépp loo xamante ne rek ñaanuñ ko am na jafe-jafe la rëq-rëq ñu teel ko yëg jaarale ko ci préfet bu Mbacké bi nga xam ne moo yilif département de Mbacké su ko yëgee rek mel na ni yëg naa ko te mel ne ni aussi kilifa yi kaw yëg nañ ko loolu lañ leen di ñaan mu ngeen liggéey ak moom ci yenn secteur yëpp mm. su ko defee suñu borom également incha allah mi kàttanal yàlla nañ ko yàlla may kàttan goo xam ne également ñu mën ko mottali mu nekk njëriñu askan yëpp te yàlla yóbbuñ ci jaam ci bës bi ba lépp luñ ci ñaan rek suñu borom defal ñu ko def ko ci def ko ci réew incha allah di fédéluwaat suñu néew rek ci xalif bi sëñ Cheikh Mbacke ak njabootu sëñ Cheikh Abdou Khadre yëpp incha allah donc asalaamaaleykum alors donc nous sommes au terme de la réunion du comité régional de développement donc qui est consacré à la préparation du Magal de Sëñ Cheikh Abdou Khadre Mbacke donc quatrième khalife général des Mourides. Nous ne reviendrons pas sur le sens de cette cérémonie et la portée de l'homme, du Saint-Homme. si Sidi Mbaké en a eu à parler. Mais tout d'abord, nous voudrons transmettre nos salutations les plus différentes au khalife général des Mourides, Seigne Moutaka Mbaké, mais également à Seigne Cheikh Mbaké, le khalife de Seigne Cheikh Mbaké et toute la famille du saint Ah, conformément également aux indications et orientations des autorités centrales. Mmh. Nous avons eu cette réunion pour voir dans quelles conditions nous devrons accompagner le comité d'organisation. Nous avons fait le tour des différents secteurs euh, dans le domaine sanitaire. Donc la direction régionale de la santé mettra en place cinq postes médicaux avancés et qui seront dotés de quatre ambulances, mais surtout renforcer ces services sanitaires en, en médicaments donc des pèlerins. euh, qui parle santé parle également du service d'hygiène en termes de prévention. Donc la brigade régionale d'hygiène en collaboration avec la commune de Touba Mosquée va procéder à la désinfection de 150 concessions mais qui seront identifiées par le comité d'organisation. Dans le cadre de nettoiement, notamment dans le secteur du cadre de vie, euh, le comité d'organisation a prévu une journée phare, à savoir le juillet, qui sera dédié au nettoiement de la ville sainte de Touba. La Sonagette apportera sa contribution en termes de ressources humaines, mais également moins logistique, une pelle mécanique et trois camions. Et la commune de Touba Mosquée, qui est en charge la lutte contre l'insalubrité, apportera également sa contribution avec toutes ces ressources humaines dont il dispose. Et là, nous en avons également profité pour demander au comité d'organisation de lancer un appel pour l'implication également des fidèles donc le jour de cette euh, opération qui sera donc dédiée au des différentes artères de la ville de Touba. Euh, dans le cadre de l'assainissement, l'ONAS mettra à la disposition du comité d'organisation donc 5 camions, 6 camions de village pendant 5 jours, soit 240 rotations. Et je crois également que le maire de la commune de Touba Mosquée s'est engagé à l'accompagner dans le cadre de ces opérations d'assainissement. Mais on sera également éventuellement en période hivernage Et là, nous avons demandé également que attention particulière sera par rapport à l'évocation des eaux pluviales pour faciliter la libre circulation des personnes et des, et des biens. Dans le secteur de l'eau, nous touchons du bois. Je pense que le forage de Bagdad est mis en service. La situation a connu une amélioration sensible. Mais pour mieux renforcer ce dispositif, donc, euh, des camions citernes seront mis à la disposition du comité d'organisation. Et ces camions seront au nombre de 5 donc, qui seront donc utilisés. Et nous allons également faire le plaidoyer pour doter ce comité d'organisation des passes à eau pour faciliter également l'approvisionnement correct des populations en eau. Et dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens, la police et la gendarmerie, et donc, je pense, donc, vont prendre toutes les discussions nécessaires pour assurer donc, une bonne sécurisation de ce magal, mais également la période pré-magal et l'après-magal. Je pense donc il également une donc qui méritera à la sécurisation des personnes. C'est la conférence qui aura lieu le 7 juillet. Et également à la levée du dispositif qui le lendemain du, donc à savoir le lendemain du 9 juillet 2024. Tout ce qui les services dédiés, élevage et douane, vont la facilitation donc, du la mesure du possible, tout à à contrôler tout ce qui est produit quand même prohibé, mais également produit également illicite. Et une attention particulière également va être accordée par rapport au contrôle des prix, conformément aux orientations, mais à la nouvelle réglementation de certains produits. Et d'ici le Magal, les services de commerce vont donc procéder au contrôle des prix appliqués dans les différents marchés de la région, notamment au marché Ocas les marchés de la commune d'Ambaké et de manière euh, le tour donc des différents secteurs et nous demandons également au comité d'organisation de travailler en étroite collaboration avec le préfet du département de Mbacké qui sera chargé de suivi des différents engagements. Et enfin, nous avons sollicité quand même des prières pour les nouvelles autorités, donc à savoir son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye que son et l'ensemble des membres du gouvernement, pour que leur mission à la tête Mais également, nous avons su des prières pour nos services régionaux, pour que ces engagements, puissent être respectés pour bonne organisation du mandat de Serine Cheikh Abdou Mbaki. Donc voilà donc en un mot donc les différentes recommandations ici de cette réunion du comité régional de développement. Au nom de Serine Cheikh Mbake, Khalif de Serine Khadr, au, nom de Serine Sidi Mbake, ici présent, président du comité d'organisation au nom des talibés et de l'ensemble des membres de la famille de Sidi Khadir Mbake. Nous prions qu'Allah accorde une longue vie et une santé à notre guide et khalif, Serigne Moutaha Mbake, khalif général des Mourides. Serigne Sidi Mbake, ici présent, remercie Monsieur le gouverneur de la tenue de ce CRD de ce matin. Par erreur, nous notons l'engagement et la détermination pris par les autorités et les services techniques pour l'accomplissement des tâches qui lui sont allouées durant le Magal. Serigne Sidi remercie Monsieur Serigne Abdoulat Ka, maire de la commune de pour son appui diligent de tous les jours. Vous savez que le 9 juillet prochain, Inch'Allah, nous célébrons la naissance de l'imam Khalif, qui a consacré toute sa vie à adorer son Créateur et à aider son prochain. Sa vie se résume en un seul mot il incarnait la rectitude morale al istiqama Serigne Abdou Khadir Mbacké représentait la sunna personnifiée nous appelons l'ensemble des musulmans à venir communier avec nous pour la, la célébration du Magal Serigne Abdou Khadir Mbacké nous appelons aussi la presse et attendons la venue de tous les musulmans le jour du Magal nous à tous un bon Magal je vous remercie salaamaaleykum wa rahmatullah ci turu euh, Serigne Cheikh Mbacké nga xam ne mooy xalifa Serigne Abdou ci tur sëñ Sidi Mbacke mi xam ne moom mooy président comité organisation bi ci turu njaboot si bu Xaadir ak ay taalibeem sëriñ Sidi mii mi ngi gërëm bu baax monsieur gouverneur ci oote gi mu wax tey ji ci CRD bi di gën bu baax it di di takkit engagement yi nga xam ni moom la autorité yi jël ngir maanaam jëmmal bés bi ak liñ ci war lépp taxaw ko sëñ Sidi mi ngi gërëm ma monsieur sëriñ Abdoulaye Ka mi nga xam ne mooy maire commune tubaa ñu fàttali maanaam bés bi ñu màggal mooy le 9 juillet incha allah muy dëppoog ñetti fanu weeru tamxarit muy dëppoog ak ganuk àdduna si Abdou Khadre Mbàkke ku ne xamul dundam da ko jébalu suñu borom ak yonent bi sala salama dundam yëpp mi ngi ko tënkoon ci al istixaama te ne xam ne mooy mu jub gën a jub te ki ko xam ne seen sëñ bu xaadir jaru nga laajte moo fi jëmmaloon yonent bi sala salama ma doon sunna boo xam ne moo doon dox ci kaw suuf ñu nga oo jullit ñëpp ñu agsi ci màggal ga jàmm di ñaanee ko si musa waxe démb ci appel bi kuy dëkk ne daal sa bagaan incha allah borom màggal gi attan na na bagaan yi te incha allah ku dikk mu dóor la ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp salaatu wasalaam ala rasulillah